flagrant délit continue mais ñëpp xam nañ ni flagrant délit c'est inscrit dans un temps déterminé biñ nous di jàpp ak yóbbu flagrant délit amatu fa jaay doole les femmes. donc nous, et tous ces centaines de jeunes garçons et filles et de femmes yi ñu yóbbu kaso dañ leen war a génne loolu mooy est am solo may daaneele ci sama ñaareeli cas mooy Yewwi Yévi. Askan Wi on appelle tous les Sénégalais à manifester le 26. L'ICO Indi, c'est pas que on n'est pas conscient des enjeux. Nous sommes mus par, le respect de la pertinence et de l'opportunité du combat. Malheureusement, nous contrainte parce que soudain, nous suñu Bala Ousmane Sonko di dem procès nous def rassemblement bob. loolu Nous avons Nous le 19 nous xalaat ni est-ce que nous nañ ko def le 22 le 22 nous ñuy jugé députés député yi soko bëggé le 21 xam nga délai légaux délai amna férié bi dugg donc Balanga a déposé ak temps biñ koy étudier malheureusement da ngay le 23 pour que les Sénégalais comprennent que ce qui importe pour nous c'est que soutenir Ousmane Sonko se battre pour qu'il ne soit pas la troisième victime de la liquidation des candidats moi lu ñor ñun ñëpp amul xàjj amul seen les gens le font franchement sincèrement entièrement pleinement que nul n'en doute et que nul n'en ignore dama bëgg rek nit ñi xam ne lii nga xam ni sumba c'est la démocratie sénégalaise Nous sommes jar ñun dañuy weesu mais dañu am obligation wu ñii nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw di ñu lége leen un pays boo xam ne kenn dootu fi xuloo troisième mandat kenn dootu fi wax article quatre-vingt kenn dootu fi tëj journaliste kenn dootu fi tëj politicien te daañu fexe ba réew mi naat réew mi dem kanam maa ngi leen dem leen sant